ji ko fa fekk ba noppi toog ca ndeyjooru jal ba yàlla nekk def leen seen xel ci moom moom mi muñ noonu ko bàkkaarkat yi bañe woon ngir bañ seen kàttan jeex ngeen xàddi yéen demaguleen ba tuur seen deret ci seen bëre ak bàkkaar te fàtte ngeen li leen yàlla dénk ni baay ak ay doomam naan sama doom bul fonk di yaru borom bi mbaa ngay xàddi bu lay yedd